jërë ngeen jëf gëstu bi waa ANSD def ba xayma ci ni askanu Sénégal toll moom la l'observateur xëy tooge yéene kay bi agence statistique démographique ci seen recensement général bi nee nañu dix-huit millions trente-deux cent soixante-treize habitants ñoo yeewoo ci Sénégal xaaj ba mu di cinquante pour cent yëpp ay jeunes la ñuy toll ci fukkeet ak juróom-ñeent moo waral yéene kay bi di l'observateur def ab taxaw seetlu ci réew moo xam ne population jeune yi ñoo ëpp ndax loole lu baax la ci réew mi am ndax safaan walay doon mi ngi ciy waxtaan ak i boroomi xam-xam yu ci mel ne docteur géographie humaine professeur Aboukan dip agrégé ci wàllu économie ak Magay Gay dip économiste international docteur Diongu nee leen réew mi bari ay zën dëgg la lu baax lay doon ci réew mi waaye ab lay doon nit ci seeni famille ak ci état bi état bi njiitam di Macky président national moo nekk ci xët mu njëkk soleil national moom ak général Moussa Fall mi jiite gendarmerie nationale yéenekaay bi nañu ci ndaje mi woon démb jëmoon ci daloo siège bu état enquête dina kay mel ne ko naan ñu gendarmerie nationale duy caaxaan monté en puissance le journal bi bind ci xëtamu njëkk dolli ci dañu xibaar ne gendarmerie am na juróom-ñeenti légion juróom benn section de recherche ñaar fukki compagnie ak juróom ak ñaari téeméeri brigade yu manqué juróom te njiit réew mi wax na démb ne fii ak 2025 danañu recruter fanweeri junniy gendarme ak juróom réew mi quotidien nañu njiit réew taxaw na temm ci xeex insécurité gàddu na jaas ji fas yéene dog boppu terrorisme trafic de drogue yooyu lise ko inauguré démb siège bu état major au commandement de la gendarmerie nationale président Macky waxal na fa général Moussa ay baax-baaxam nee ko mission bi ñu la dénk yaa koy doxal ci rigueur yaa koy doxal ak loyauté yaa ngi koy doxal ak professionnalisme xam nga li la war te sax nga ca maanaam sens du devoir la si na ne président Macky da doon waxali mbaax général Moussa Fall meneen di cendeel directeur général jëli fiche de parrainage yi Ousmane Sonko yi di Ayib Daffé demaat na démb waaye kenn joxu ko fiche de parrainage yi loxoy kese la fa duggee loxoy kese la fa génne sursooy ne ko moo tax it bu mu génnee yàq na leen xeme Sud Quotidien bind ne direction générale des élections ak tëdd xeltee na ci ndax justice bi jël na dogal DGE lànk ne du ko def Moundiaye Cissé directeur exécutif ONC 3D ni ci xët mu njëkk yéenekaay bi li ñuy ñooñu direction générale des élections du lenn lu dul jëf ak banditisme administratif le témoin ak journal l'info xëy di ñu xibaar ne avocat yu Ousmane yi am na beneen recours bu ñu yotaat waa Sénat commission électorale nationale autonome la ñu cay mooy comme direction générale des élections nanguwut a jox Ousmane Sonko ay fiches de parrainage am na Sénat substitué wu jox seeni fiches de parrainage wutum parrainage ci réew mi bés bi le nañu luusa ci yéenekaay bi ne jaay na 500 fiches parrainage ci 1 million ndax gaañi ay parrain la soxla moom nag parrain la dafa yor kër am ay sars ñu desarcé wu ci politique bi jël sunu làmb wax ci làmb ji war am dimanche ji ci diggante Modou ak Ama Baldé Modou Lo ci xët mu njëkk sunu làmb muy xam le ne combat bi sama combat la maa ngi xaar Ama Baldé de pied ferme libération mel ne ku naan ñu mi ngi xaar ku waa Pikine yónni yàkkamti ko mi ngi xaar ko xam ne Pikine gi yëpp ci ginnaawam firnde li libération nee mooy ni bu ji de caare ko Mamadou ak moom Ama Baldé moom directeur général des domaines di bi Ama Baldé di def open press am ci stade Alassane Djigo ma nga fa woon àndoon ak supporters yu bari demoon doon ko jàppale ak di ko dolli doole ba jox ko fab drapeau yamu ca ndax jàppale na ko ci wàllu koppar baaxee na ko ay bus jëndal na ko ay ticket lépp rek ngir bëgg sëll bu ndaw di amaa Baldé indil waa Pikine couronne bi Kati Diop di ñu jàngatal combat bi ci journaliser ko nee na combat la boobu kenn mënu laa fan lay mujje combat bu ubbeeku ndax ñaar ñi ko séq muy Modou di Ama Baldé kan la ci ñoom du ci dellu gannaaw